jékki-jékki dangay dootul xam sax looy wax man ne nga dama toog di xalaat ye sunu boroom ak xeetu mbaax yi mu ñu defal xeetu barke yi mu ñu wàcceel moo xam ci daayira bi moo xam feneen ak feneen ma seet seet lu may ñaanal yàlla <laughs> man ko jazakumullahu anna xayran waaw <laughs> mujj gi nag may may ree jazakumullahu anna xayra ma ne ko yàlla mi ma tudd ci biir phrase bi ak moom yàlla ci boppam ñaari yàlla yi ban la ci lu jara bàyyi xel la yàlla benn turam dana multiplier wu ñëwee ci autorité bi tey ñëwee ci autorité bi tey ñëwee ci autorité bi tey bii yëlëf bii yëlif bii ndax contexte bi moo tax bu ma ko ne jazakumullahu anna xayran moom comprendre na waaw moo tax yu sew sewaan yooyu xam ko c'est très important waaw am na ku ma koy laaj sax ni ma dafa bëggoon ma gën ko leeralal ci jaa'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masnan wa sulaasa wa rubaa mais bala ngay dem foofu li nga war a seet may lu tax yàlla tuddul benn masnan la commencé bu dee ci ñeenti jabar yi tuddul aawo bi du tudd aawo ca ñaareel la commencé masnan wa sulaasa wa rubaa jar na seet dégg naa oustaz Alioune Sall sax doon na ci def waxtaan ma ne ko Badou day layi di waaw waxin la waaye xam nga bi ma fi waxta am ñuy dal sama kaw ni Jibril sax du ma du ma weddi am ñuy mer lu ne ñu wax ko nit a tëdd gént billaahi wal kitaabi nee sunu boroom a ngi soonu Mikaayil ak Israfil ñoo taxaw nii ci wetam nee na mu dégg sunu boroom ni waa ana Jibril nee na Mikaayil ni ko Jibril moo suwoonu ca fële mais li muy bañ a dégg mooy ku tudd Moustapha Sy ku tudd mu dal ci sa kaw billaahi wal kitaab ba tax ñun tiitaruwuñu la fax lu yonent bi daan wax njabootu jaamur lañu nag waaw njabootu jaamur lañu waaw loolu taxoon góor gi di ko wax fii ci course bi ni lu ci xale tuuti tuuti ku ko laal sëriñ Babacar jëfanteeg yow waaw waaye mu teg ca ni man mii xam naa ci dara waaw moom góor gi parce que am na fu sëñ Babacar jaar ak moom ndax ñun waaw ba tax na kon nag li ñu am ñu xam ko ndax fii ñu jëm mobilisation dëgg la laaj te nag ñoom Serigne njaay ak ñoom Malick ñi ak ñoom Matane Ndiaye ñi ak ñoom Imam sàmba ñi ak ñu baax ñi bokk ñoom pas-pas bi taxawaay dëgg la laaj ñom oustaz Cheikh ñi ku ci nek ak domaine ba nga ko mën a ku ci mën collaborer ak Cheikh Tidiane Youm nga collaborer ak moom bu len defal ni day dem rek daf ko sañ sañu ko parce que mako taxam tax France ñew ñibbi si fii ak wa këram ay bagage am sax mako ko indaale Tabaski du deug ñu jaari ji Maroc

looluy tax rek d'accord xëy na am na ñu am yéene ba ngeen ko commencé ci seen meeting ba ba ngeen defee woon géejawaay koo laaj rek mun la sëñ Moustapha mooy sunu candidat ma di leen laaj fii ma toll ak responsabilité bi ma yenu yenul ko mag ñi ndax mën na nekk man candidat ci ay présidentielle bi ci des mooy ñi fi ne kan laa ci tollool kan laa ci tollool ndax ku mu manti doon mën naa génne ci sama biir njaboot ku la ëpp lépp te nit day xam boppam te góor gi moom ma ko waxoon 2000 bi ma defee sama candidature ndax dama xam ne bu ma ko koy yëgalee du ko nangu ma dem déposer ko mbokk mi ni ma ba ma demee palais de justice di di yóbbu candidature bi mu ni ma nit ñi dañ doon fecc ndax ni comme sëriñ Moustapha day nekk candidat mu woo ma ba mu ñëw mu ni ma demal dindi ko teguma ca baat ndax duma weranteeg moom waaw demal dindi ko man ma ni ko incha allah mu ni ma Abdou Diouf sax ñaan ma ni ma moom daal day rus di xëccoog yow ndax yow doomam nga man ko parce que buñ ko seqee ma duma ko mu ne ma mais loolu taxul ma wax la ko man maa xam ci réew mi lu nga xam ni trois mandats sax rek lewu ko te may yëg ni ku jël yëf yi def benn mandat te rekk léwuloo problème wu sénégalais yi dinañ la saaga mun ma tëyew ku la saaga dem safara waaw nag dindil sa candidature bi ci des mooy ñi ngeen donn Seydina Cheikh nanguwul woon ay njaboot ci boppam dëgg di meelewu ci yenn yi waaw mu ni ma président du Dia bi waxoon naa ko ko ba muy commencé ak Senghor ni ko tee nga bàyyi parce que comme yow ci tariqa tijaan nga bokk te sama turandoo am na lu mu nanguwul waaye mu ne ma booba yeneen i yi ña nga toog ci këram di ko xaar pour lu ma ko wax bu ñëwee ñu dindi ko ca loola nee na mu forcé ni day dem defante ji ak Senghor ba ñu denc ko Kédougou waaye nee bi mu génnee prison ñuy waxtaan nag mu ne ma man daal bu ma yëgoon la nga ma waxoon lay def ndax ca la sama jàmm nekkoon waaye lu ma ci rëccoon nag ci sama diggante ak yow bëgg naa ko dabu ak sunu doom ji ndax dégg naa discours ba mu def ca Thiès mooy 93 ba te place de France waaw dafa mujj ñaan góor gi sax ni ko dafa bëgg ma ñëw nuyu si ko ca këram waaw góor gi ni ma jëlal Malick mbay nga jël Serigne Ndiaye waaw nga jël ñoom Khalifa Sarr ñooñu nga xam ni nit ñi miin nañu seen way jur yi ci man nga ànd ñoom nga nga dem nuy ci ko bi ñuy ñëwee ndeysaan léeg-léeg mu jox loxo kenn ni kii kan la ma ne ko kii mooy Malick Mbaye doom walla ci njaase mbay bi daan ànd góor gi mu ni wax a yort mu daal nuyu ni ma kii mooy kan ma ni ko kii mooy Serigne Ndiaye doomu Alaaji Malick Ndiaye binen ande sering bi mu gësam loxo bi ni wax a yor waaw mu daal di wat loxo ni wa ki mooy kan maniko ki ko khalifa sar do mu abdurrahman sar binen ande naan gi mu di koy jël taf ko ci bopam wa ni ma wacc nga ku sa bay ànd ak ña mu yëdda doon nga xey ànd seeni dom wacc nga wa wa wallaay ndeysaan keroog wax na lu ne moom président Mamadou Dia encouragé ma ni ma noonu la ndax sa baykat ñun li ñu génne moo ñu ca génne waaw kon nag erreur boobu duñ ko def deux fois waaw benn yoon rek lañ koy def kon nag na nga taxaw ñun luñ la mën a jàppalee dinañ la ko jàppalee waaw ko defee kon nag loolu rek moo fi nekk ku ne xam nga sa nit fa mu jaar ak yow moo biñ biñ mënee délégation président Ablaye Wade ñëw na ba fii ci résidence bi tabaarakallahu ak yóbbante ya ñu indaale ah wax kàddu ya ñu wax yépp ma ne ah, moom de ku xool li woon démb sa xel war na man dal waaw ni Ablaye Wade de mu tok bañ ni président de la république du Sénégal ak liñ ko wan ak liñ ko dugal ci prison nga xam ni budul won suñu fayda ak suñu taxaway waxuma la nek président wa du génne sax prison man ma la ko wax waaw mu melni nak kon coono boobu moom lañu jël teg ko ku ni Sonko parce que la ma wax ci anniversaire ni jàmbaar la gor la moo leen dérangé ak la ma tudd Pape moo tax dañu anniversaire rek ñu ñaar waaw Cheikh Bara waaw mais fekk na yooyu yëpp occasion la pour seen borom liggéey ndax lay ñëw moo gën di farata waaw bu ko defee rekk kon xamuñu stratégie sax waaw ma ne ko xamuñu sax stratégie waaw dan nga gis ay nit yu jóg te bokk ci yeewi askan wi ni dañuy séti Sonko ca hôpital ba boo ko defee bu ñu ñëwee mu daanu daanu lu crise wa mel ni mënu la wax parce que la ko intéressé wax na ko man ba noppi boo ko defee médecin ni len leen ah dafa nekk dans le comment fokk ngeen may ko ñu daal di jógaat dem rek moo ci bëgg loolu waaw bu ko defee kon nag yooyu yëpp ci lu ñuy nettali rekk lay mujj man maa leen ko wax waaw ni jéem nañu tenter ba tey pour éliminer ko définitivement xam naa loolu xam naa lu ci nekk waaw waaw te yaaya ngi nii seede la ci man cheikh a ngi nii seede la ci man lëya ngi nii seede la ci man cheikh jaxate ngi nii seede la ci man waaw waaw ci mbaaxu yàlla ci mbaaxu yàlla incha allah waaw ah, mu ngi naaj kuur bi sax sorewul mais daara ji du jeex mais fi ñu toll nii lii la réew mi laaj waaw nit ngi jongoro li ñu gis def leen déranger te ñemewu ñoo tudd ndax ay kilifa ñoo tax dama xam ni boo ko bàyyee ñoom itam ñu bu ma jël sama responsabilité parce que damay wax ni si borom du xuloo sunu borom du xuloo day faj ndax day ko ni keneen rek mu ko et puis c'est tout mais du xuloo waaw. na nag ne mën nga ñoo dëkkal fu nga gis sax ñuy binde bu Mansour Diop en tant que journaliste nekk ci TV mu wax ko dañu ci annonce ni man damay chercher électorat bu Sonko lu ma koy doyee man sama électorat benn tolluwul ni moom di kon lu may demeti pour wuti électorat bu bu Sonko mënul nekk moom bu ma soxlawul man duma ko soxla te moom xam na lool loo taxoon bi bi mbokk mi ñëwee ni ma sonk moo yónnee nee na nga may ko ay carte pour gàmmu gi ma xam ne xam na ni foofu la intérêt nekk ma boole Cheikh ak oustaz Cheikh Sarr ne ko na leen wutal ay carte te wutal leen ay laissez-passer waaw mu yónnee délégation bi mu yónnee ñu ñew fi te bokkul ak délégation bi ñew ci Yewwi Askan ndax nit ñi Cheikh Begg bi seede la ci waxtaan na ci ak mom fekk bobu ñuy waxtaane affaire candidature yi mais defe nga ni réew mu tollu ni présidentiel ñun le soixante candidats ñoy xëccoo yëf yi loolu fu mu jëm te waa ànd bokk yaakaar genn wàll ga yépp ñii seet si nañ ma ñii yónnee nañu ma ndaw man la ñuy déglu ni fu ma jëm yóbbaale leen waaw moo tax rek ku yóbbu teey lii marché mu ngi marché xamuloo waaw bu ko defee rek bu la yàlla defee nga jeexal danga koy nangu tudd naa fi fii ñeent ku ci paase ñeent géwma nga dem fu sore Senghor fi jiitu woon Abdou Diouf moo ca topp Ablaye Wade topp ci Macky Sall moo clôturé même régime bi du jaadu pour mu continuer li ma wax xam naa ko dafa tolloog Sénégalais yi nag ñu ngi noonu waaw mais man li ma leen di wax xam naa ko waaw ngeen baal ma nag baat yi léeg-léeg dama cay toll waaw laaj ko capitaine mi Cheikh yu ma ngi toog ma ni capitaine sa moo ñaf Senghor ma ni ko man mii di sa mbokku daay daara maa ñaf Abdou Diouf ma ni ko Ablaye Wade nag parenthèse rek la moo tax jarul woon yenn yi ma ne ko waaye kii fi mujj nag ma ne ko sa cër la jëlal say disposition moo tax mu wax leen lim leen wax démb ni waxal li nga bëgg rek wax na dëgg waaw kon nag dina wax ak yéen waaw man dinaa wax ñi ma war a waxal mën naa prononcer ci candidature bi mais jarul yàkkamti dafa am liggéey bu ñu bëgg a